Amadou Lamine Sall maa ngi lay nuyu. mais maa ngi lay delloo sa euh, euh, homme de culture poète écrivain commissaire général yi tamit ci euh, mémorial bu Gorée ci mémorial boobu li sax daanaka projet la xamante ne daañu ko teg ko ca corniche ouest bu Dakar loolu lan moo ci sa bi mooy dafa nekk liggéey boo ne. Euh, depuis Abdou Diouf la woon mu nekk liggéey boo xam ne ñëpp a ko doon xaar sénégalais ñu ngi ko doon xaar africains yi du ko xaar euh, a ngi nekk bitim réew également di ko xaar mu nekk liggéey boo xam ne ñëpp ko doon xaar euh, Abdou Diouf defoon ci lu rëy mais bi Abdou Diouf demee ba léegi daal coono leen ne coono leen nekkee woon yàlla mi nga xam ne dara tawu ko mu ànd ñu Macky Sall Macky Sall nag moom moom ci boppam. moom la ñu war a sant moom la ñu war a gërëm parce que liggéey bi nga xam ne liggéey na ko ci culture dafa nekk liggéey bu rëy surtout nag mémorial de Gorée bi nga xam ne incha allah lay def lancement travaux yi kon nag dafa nekk loo xam ne dañ koy sante yàlla euh, parce que àddina bi yëpp ñu ñuy xool ah ñu ah, ñuy déglu te ñëpp a ngi wax amiin yaare bi lii waroon na commencé depuis longtemps. alors mën nañu wax ni euh, ouf de soulagement la. waaw euh, ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm yàlla bu baax euh, parce que comme ni ma ko waxee rek suñu amoon ay milliards ay milliards ay milliards itam du tax ñu mun a tabax mémorial de Gorée bi. parce que du ay ah du xaalis moo tax ñu tabax ko mais. à volonté politique mooy ay ay ay ay ay kàngam ay homme politique président de la république boo xam ne moom xam na lan mooy mémorial du Gorée xam na lan lay jëriñ Sénégal lan lay jëriñ Afrique ak ak lan lay jëriñ bitim réew donc président de la République bu bu am xel moomu bu am yërmande boobu euh, bu am xol bu rafet moom moo ko mënoon tabax soo amoon ay milliards itam doo ko mën te moom àndu ci. kon nag moo tax ñuy gërëm le président Macky Sall di ko gërëm parce que depuis Abdou Diouf ba léegi yàgg na waaye bi mu ñëwee dafa jël projet bi def ko projet waaw. kon nag ñun dañ ciy sant yàlla rek xam ne yàlla ñëw na Macky li ñëw na kon nag alhamdulilah rabbil alamin est-ce que nekkul loo xamante ni tamit waroon nañ ko fi taxawal bu yàgg. waaw moom la moom laa la doon wax léegi depuis depuis président Abdou Diouf la woon ba léegi bi président Abdoulaye Wade ñëwee ah, moom moom daal amul dara lu mu ci def. waaw léegi nag euh, yàlla mi nga xam ne dara teewu ko bi président Macky Sall. ñëwee euh, mu def ci lépp li nga xam ne moom moo ci waroon def li nga xam ne nag moom lañ bëggoon mooy balaa muy dem mu inauguré ko waaye bon comme yàlla yàlla doxale ko noonu euh, ñu gërëm ko ci rek euh, moom mooy def pose de première pierre bi lépp li nga xam ne moom lañ ci waroon def def na ko te kenn du ko fàtte ci li nga xam ne moom la def mu ngi dem waaye bàyyi na fi lu rëy rëy loo xam ne incha allah gannaawam dina nekk loo xam ne lu rafet la. mu nekk nag loo xamante ne daanaka ca conseil des ministres njiitu réew mi euh, yëgle na ne euh, mémorial bu Gorée doon na nag lu am solo jëm sax ci rayonnement wu aada ak cosaan fii ci Sénégal ak Afrique wërngal këpp. dëgg la conseil des ministres sax bari na. conseil des ministres yu bare bare bare président Macky Sall wax na ci mémorial de Gorée. woo ministres yi woo gouvernement am ne ñëpp nañ ci jàpp. Euh, message à la nation bi nga xam ne moom la def 31 décembre itam. wax na sénégalais yi africains yi ak àddina bi yëpp. ne moom mu ngi lancé chantier mémorial de Gorée bi kon nag moom def na lépp lépp lu mu waroon def ah, def na ko euh, ñu ngi koy ñaanal mu dem ak jàmm euh, bàyyi fi jàmm waaye li nga xam ne daal moom la bàyyi gannaawam lu rafet la yu rëy la euh, mémorial de Gorée bi nga xam ne mooy ay ay ay junni junni junni millions ci suñu ay doom ñoom ñoo fi ñoom ñoo fi jóge ñu ñu def leen jaam yóbbu leen Amérique yóbbu leen euh, métti Caraïbes yi def leen ay jaam donc ñooñu la ñuy fàttaliku parce que ñooñu dañ leen war a fàttaliku euh, ah ci Amérique tabax nañ fa mémorial pour fàttaliku ñooñu ca Caraïbes fële tabax nañ fa mémorial bu fàttaliku ñooñu Afrique rek moo desoon Afrique rek moo desoon te ñoom ñëpp fi lañ jóge dem États-Unis dem ci Caraïbes yi kon nag Afrique rek moo amuloon mémorial boobu. Macky Sall ne dinaa ko tabax du ma laaj xaalis kenn waaye man dinaa ko tabaxal sama bopp euh, kon nag yàlla jàppale na ko euh, ñu ngi ko ci sant euh, ba mu bàyyi fi loo xam ne lu rëy rëy rëy la loo xam ne kenn du ko fàtte ah te xale yi ñoom itam ñu jàngal leen lan mooy mémorial de Gorée pour que ñu ñuy fàttali ko li nga xam ne moo fi amoon te waratu fi am. très bien wax na itamit ci lu jëm ci fukk ak ñaareelu ma édition festival national des arts et culture di FESNAC nga te ne mën nañ koo amal juróom ñetti fan ba fukki fan ak ñaar 2024 ca Fatick. waaw kooku moom ah ministre Aliou Sow le professeur Aliou Sow bi nga xam ne moom moo yore ministre de la culture et de la communication et du patrimoine historique mu nekk ministre boo xam ne bu xarañ la parce que moom ci boppam moom moo ne man damay sargal Macky bala balaa muy dem Macky Macky Sall liggéey na fi loo xam ne euh, dañ ko war a sargal dañ ko war a sant dañ ko war a gërëm dañ ko war a ñaanal moo tax mu ne euh, festival boobu mu ngi ko defee Fatick parce que Macky Sall fa la jógee donc dafa dem mu fekki Fatick waay fekk fekki waa Sine fekk fekki waa Saloum bu tabax fa euh, def fa fes nag boobu pour sargal Macky Sall lu rafet la la parce que xam ne ne président suy dem bon homme politique yi ñoom xam nga rek ñoom ñoom foo am lem rek foo am lem la ñuy dem ak foo am suukar waaw ko comme Macky mu ah, mu ngi dem bon moom munoon na wax ne mu ngi dem man duma ko defal dara waaye deful loolu dafa ne ma dinaa ko sargal lépp lu ma mën a def ci àddina dinaa sargal Macky Sall pour que ñëpp xam Macky Sall lan la def ci culture. mu invité réew bu mag muy Maroc. Maroc itam ñëw pour sargal Macky Sall. kon nag professeur Aliou Sow dañ ko war a gërëm dañ ko war a parce que li mu def lu rafet la jullit noonu lay def jullit dafay dafay baax jullit dafay yaatu jullit dafay baax xol mbëggeel mbëggeel moo moo gën bañeel ah, mbëggeel dafay tax nga dund mbañeel baaxul baaxul tey baaxul ëllëg ñun xamuñu loolu sénégalais yi xamuñu loolu Macky Sall mu ngi dem nañ ko sargal nañ ko remercier parce que yàlla moo ñu ko andil yàlla yóbbu na ko mu ngi dem. na nga gisee tamit thème bi nga xamante ne tànn nañ ko ñu ne Macky les arts et le patrimoine. waaw Macky Macky mérité na ko parce que dafa am lu mu def ci culture. mémorial de Gorée bi am nga noonu léegi euh, lépp loo xam ne ci art mais ci art la mais ci culture la euh, vraiment joxe na ci xaalis à bu tar pour que vraiment ñëpp nekk ay ay ay artistes yu mag pour que ñëpp mën a liggéey ñëpp kenn bañ a torox kon nag vraiment moom sargal na culture. Euh, sargal na bindkat euh, sargal na artiste def na lépp lum mu ci mën kon nag ñi ku mel noonu en fi nekk ne mu ngi dem euh, vraiment li professeur Aliou Sow def comme ministre de la culture ah lu rafet la te vraiment méngoo na ak li nga xam ne moom la Macky Sall def. Mm-hmm. fes nag 2024 bi nag nar a dajale ay artistes yuy jugee fépp ba ci diaspora bi yaa ngi ko doon wax sànq lu ci mel ni Maroc euh, invité étranger waaye tamit invité d'honneur sax euh, daanaka bokk na ci communauté lébu yi euh, ba ci sax bu Sénégal muy lébu Sénégal muy invité d'honneur yi tamit. waaw vraiment lu rafet la parce que ah, ministre Aliou Sow de dafa invité lébu yi toute la communauté lébu mu ne leen ñëw leen Fatick ah dans le Sine dans le dans dans le Saloum. ñëw leen ngeen sargal Macky Sall mu invité marocain yi ne leen ñëw leen ngeen sargal Macky Sall euh, parce que réewu Sénégal ak réewu Maroc vraiment dañoo nekk ñaari réew yoo xam ne ñoom dañoo ñoo ñoom dañoo bëggante ñoom dañoo sey sax ñaari réew yu sey la yàgg na am ay jur ay doom yu rafet ay doom yu mag communauté lébu bi itam vraiment ñëpp xam nañ ne ñoom Cap Vert lañ nekk waaye Aliou Sow daf leen wax ne ñëw leen ñëw leen Sine ñëw leen salum ngeen sargal ngeen sargal Macky Sall pël yeeg joolaa yeeg séeréer yeeg lébu yeeg ñëpp ñooy tase Fatick fi nga xam ne foofu la Macky Sall juddoo fi Macky Sall jógee pour sargal Macky Sall mu nekk lu rafet mu nekk lu rafet parce que ñun lu rafet rek la ñu xam mm-hmm. lu rafet rek la ñu war a def euh, lépp dafay jeex amul lu dul jeex kon nag nañu defar rek moo tax professeur Aliou Sow dañ ko war remercier parce que lu rafet la def. mu nekk ay initiative yoo xamante ne daanaka lu war la ci euh, jiitu réew goo xamante ne moom mooy protecteur des arts et des lettres euh, du Sénégal bu njëkk yi tamit. président Macky Sall ci constitution Sénégal dañ ne moom mooy art moom mooy art lettre art ak artistes yëpp moom moo leen di art ci constitution Sénégal dañ ko bind. waaye nag li professeur Aliou Sow def bon ñeneen mënoon nañ ko bañ mënoon nañ ko bañ def. moo tax ma ne ah du loo xam ne dafa normal mais Aliou Sow moo nekk ñi koo xam ne ñi ku baax la ñi ku am yërmande la ñi ku am ñi ku am gëstu la moom ministre la munoon na wax ne président Macky Sall ah dafay dem man damay dem kon nag du ma fi defal dara Macky Sall waaye dafa loolu de dafa ne vraiment président bi ah li mu def ci Sénégal jar na vraiment ñu ñu ñu ñu ñu ah, ñu sargal ko mm-hmm. ñun nag. dañoo nekk réew moo xam ne réew bu difficile la réew bu jafe la fii fii moom dafa compliqué yépp compliqué ah, yépp compliqué waaye def lu baax daal moo gën xalaat lu rafet def lu rafet moom moo gën loo gis dafay jeex moo tax kon nag vraiment lébu yeeg séeréer yeeg pël yeeg joolaa yépp tase Fatick vraiment pour remercier le président Macky Sall loolu rafet la. mu doon tamit loo xamante ne dina sukkali sax daanaka ressources yi waaye tamit lépp loo xamante ne jëm na ci wàllum aada ak cosaan ak patrimoine. waaw xam nga Sénégal dafa nekk réew moo xam ne. culture lañ ko xamee. kenn xamee woo ko économie <laughs> kenn kenn xamee ko ay ay ay ay ay science. Hmm. culture. Léopold Sédar Senghor moom moo moo moo. Léopold Sédar Senghor moom sax moo doon wax ni la culture est au début et de tout développement. voilà Léopold Sédar moom moo moo moo samp. moom moo samp Sénégal bon moom moo samp Sénégal moom moo jaar ci culture ba Sénégal tey mën a nekk li mu nekk donc Sénégal xamul lu dul culture culture moo ko yóbbu culture moo ko yóbbu fu nekk ci àddina culture mooy teraangaam euh, kon nag dafa nekk réew moo xam ne warul fàtte culture waru ko fàtte tey waru ko fàtte ëllëg te loolu la président Macky Sall xam ba vraiment mu jàpp ci culture bi jàppale leen dimbale leen ah Euh, pour que vraiment fi sengoor bàyyi woon Sénégal vraiment ci culture moom itam mu bàyyi ko fa su ko yokkul sax waaw président bu ñëw rek yaa ngi ak Senghor ci sa rétroviseur sooy dawal oto yaa ngi ah, rétroviseur bi sengoor la yaa ngi xool ak ah, ndax lu rafet li fi Senghor bàyyi woon ci culture ah lu rafet bi nga xam ne moom la fi bàyyi woon ci xam-xam parce que moom yëpp xam-xam la yëpp xam-xam fonk xam-xam waaye léegi dañoo néewal xam-xam waaw kon nag président Macky Sall ñu ngi koy sargal ci loolu. très bien en tant que poète nan nga gisee tamit niveau euh, ndaw yi. waaw kooku moom wax naa leen ne suñu réew mi moom dafa nekk réew moo xam ne vraiment. Euh, bu ñu tiit nag jarul tiit. waaye nag liggéey bi des na liggéey bi des na. te li fi xew vraiment dafa nekk loo xam ne lu metti la parce que nit ñi léegi jàngatuñ. wutuñu wutatuñ ay. ay diplôme wala boo nga ne su ma amee diplôme sax du ma am liggéey donc léegi nit ñi utatuñu xam-xam nit ñi xaalis la ñuy wut suñu yeewoo ñu ngi ut xaalis ah suñuy neloo ñu ngi ut xaalis ah suñu yeewoo ñu ngi ut xaalis rek ah te xaalis dafa am fu mu war yem xaalis xaalis du réew de du xaalis mooy tabax nit mooy tabax réew suñu doom yi bu ñu leen bàyyee xaalis nañ leen bàyyee réew suñu leen bàyyee xaalis rek réew mi sanku ñoom itam dañuy sanku nañ leen bàyyee réew réew moo xam ne euh, euh, yàlla moom moo fi nekk ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ak Jésus Christ mu nekk réew moo xam ne ñëpp dañoo bokk nekk benn xol a dëkk ci même kër ñëpp bëggante soppante di waxante dëkk waaw ci loolu lañu ñu war a dellu xale yi itam ñu bàyyi li nga xam ne moom la ñuy def. mooy di jël ay gaal di dem bu ñu dem. bu ñu dem nañu toog fii la. mais du feneen de. fii la seen maam yi nekk fii la seen bàyyi nekk fii la seen yaay nekk. Hmm. nañu toog fii. amul dara lu dàq Sénégal amul dara lu dàq Afrique. Ah, nañu toog seen réew. parce que mu metti nañ fi toog mu neex nañ fi toog waaw parce que man daal message boobu laa leen di wax parce que réew mi ñoom ñoo koy tabax fuba waaw ñun ñëpp dañuy dem waaw xale yi ñoom ñooy ñëw kon nag xale yi il faut ñu bàyyi ci ñoom xel il faut ñu waxtaan ak ñoom waaw il faut que papa yi yaay yi ñëpp ñu waxtaan ak xale yi loolu daal moo moo moo nekk loo xam ne daal vraiment ñu bañ a fàtte xam-xam bañ a bañ a fàtte jàng bañ a fàtte teraanga ah, ñëpp ñëpp ñëpp dal ñu fexe ba suñu Sénégal bi nekk Sénégal boo xam ne vraiment euh, yàlla su nekkee ne dafay jël ay vacances am mu ne maa ngi dem Sénégal jël fa samay vacances. amiin yaa rabbi en tout cas Amadou Lamine Sall jërëjëf may fàttali rek ni homme de culture nga poète nga écrivain waaye tamit commissaire général ci li nga xam te ne mooy mémorial de Gorée ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci yow itam maa ngi lay félicité maa ngi lay félicité bu baax parce que vraiment yow itam ces questions yi nekk na ay questions am solo la ni ngay waxee wala fi itam nu ma neex la yow exemple nga yow itam yal na la yàlla jàppale. merci beaucoup jërëjëf Amadou Lamine Sall. monsieur Ba Amadou Lamine Sall. monsieur Ba Amadou